asalaamaaleykum mbokkee xarit internet yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam am mbégte contenté retrouvé waat leen dans édition spéciale tey nag ñu fas yéene waxtaane Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum euh, nga xam ne référence la bu ñu koy wax dañu am mbégte suñ koy wax dañuy am fierté dañu am contenté bu mag parce que lan foo tudd turam biir réew ak biti réew xam nañ ni Serigne la xam nañ ni doomu wàlleew la yamu fa mais moom bokk na ci ñi nga xam ne daan nañu wax naka ngay jaamoo yàlla. waaye yamu ca di ñu wax boo nekkee ci réew nag ngay fexe ba bokk ci réew bokk ci liy doxal ci réew mi di wax lu baax di jëf lu baax tey nag dañu am mbégte kontante dalal ki nga xam ne sëriñ la doom la taalibe la jarbaat la waaye nag soo ko laajoon moom personnellement dalay wax ni man taalibe la parce que loolu lay fësal waaye ñun jege ko xam nañ ne ab sëriñ la. imam maa ngi lay nuyu di la dalal di la wax asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu internet yi ñu ngi leen di nuyu di del ci waa site bi nga xam ne ñoom ñooy jël waxtaan bi muy Kéba ak Souleymane ñi nga xam ne ñu ngi ciy def liggéey bu am solo kon ñu ngi leen di nuyu waa Senclic ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. maaleykum salaam wa rahmatullah dégg ngeen ko noonu sëñ bi tey ki ñuy fas yéene waxtaanee ba tax ñu woo la déplacé la nga ñëw toog xam naa ni. Euh, amuloo jot waaye dala ko jaral ngay fësal ab sa taalibe ab sa soppe ci moom moo waral nga déplacé wu bàyyi say tépp ñëw tey ñu lay fas yéene laaj kan mooy Serigne Cheikh Tidiane si Al Maktoum. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah xam naa ñu ngi nuyuwaat mbokk yi di leen ziare di leen balu ak rawatina nag mag ñi nga xam ne ñoo dund ak Serigne Cheikh xam ko jonjoo ak moom. ñun nag ay soppe lañ lool ci moom kon bu ñu nee nañu wax ci moom eh, dina diis ci ñun pour ñu wax kan mooy Serigne Cheikh mën naa wax ne sëriñ Cheikh eh, bu ñu leneen kaay wax ci moom mooy ñu ne la demal ci géej nga indil ñu fa boo demee ndox benn kaas nga fay tànk rek indi loolu ngay indi moom mooy la nga ca xam waaye la nga fa bàyyi kenn xamul nu mu toll Serigne Cheikh géej la géej la waaye danañu wax euh, fan la juddoo kan mooy yaayam kan mooy papam ban famille la bokk ndax it nit ki boo ko buggee wax ci moom présentation boobu nga mën a def ci moom ndax nit ñi xam kii fan la bokk ndax nit ki bu ñu la waxee fi mu bokk nga xool na mu dundee di nga xam ne lii moo tax mu mel noonu nii moo tax lii am Euh, moom nag moom nag mën nañu wax nii métis la métis la mooy dafa laal ci tukulóor laal ci séeréer moom ci boppam daan naa ko wax ne man tukulóor la pël la séeréer la loolu yëpp li tax mooy bu ñu leen waxee ni mu bokkee rek di ngeen xam moo tax lu taxoon mu doon wax loolu mën nañ wax ni moom mu ngi juddu moom Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ci le 29 décembre 1925 ca Ndar foofu la juddoo kon mën nañu wax ne Ndar Ndar la kan mooy yaayam ak kan mooy wéyjuram bu góor bu ñu ne Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Chérif lañu ko tuddee kan mooy papam mooy Serigne Babacar si boo xam ne kenn du ko laajati doomu Seydi Hadji Malick Sy radiallahu taala anhuma kooku moo ko meññe kon boo ñëwee ci côté papaam tukulóor la muy benn kan mooy wejuram bu jigéen wejuram bu jigéen mu ngi tudd Aïchatu Kan Aïchatu Kan boobu kan moo ko jur Alaaji Abdou Hamid Kan ca Kaolack sunu mbokk yi ndax man mii wax ak yéen Alaaji Ousmane Kan nga xam ne moom ak Astu Kan mi jur Cheikh Ahmed Tidiane ñoo bokk ndey ak baay man man moom lañ ma tuddee mooy sama turandoo mooy Alaaji Ousmane kon moom ak soxna Astu Kan jur Cheikh Ahmed Tidiane ñoo bokk ak baay mais Astu Kan Marème Ba moo ko jur Marème Ba moomu selbe moo ko jur selbe moomu séeréer la kon moo tax moom dafa bokk côté Maba bajaxu Ba wëlbatiku ñëw bokkaat ak alaaji Abdou Hamid ñëw bokk ak ki nga xam ne mooy Serigne Babacar si ci wete côté Seyda Hadji Malick ak awee juram kon moo tax mu doon wax ne moom tukulóor la pël la waaye séeréer la kon ndar la juddoo da ngeen di dégg souvent ñuy wax ni moom dafa indaale turam loolu nag buñ ko waxee dinañ am ñu foog ne peut-être bi ñu ñëw gis tuur bi ñu bind ko fii walla mu mais histoire bi mooy sëriñ Serigne kër si kenn wérantuwul ni mu meloon ci Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu woy bu nekk woy na ko Serigne seex sopp ko bëgg ko lool ba bi yàlla defee maam astu kan bi mu nekkee jigéen bu wérul ci maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al ci weer yu njëkk yi la ko Cheikh Tidiane Chérif feeñu ne ko sa soxna Aïchatu Kan dafa ëmb ki mu ëmb doom ju góor la waaye nag ma ko tuddee kon loolu bi mu juddoo ca juróom-ñaareelu fan ba la ko sëriñ Babacar si tuddee Cheikh Ahmed Tidiane motti li yéene bi nga xam ne moom la si turandoom amoon ci moom bëggoon ci moom moo tax Serigne Cheikh daana wax ni Serigne Babacar daana ko wax ni lépp lu ma wax ci sa ci sa turandoo rek ci sa maam rek na ko wax ci sa turandoo moo tax bokk na ci lii wane ne moom Serigne Cheikh moom lañ ko tuddee ci xasidaam boo xam ni. daf ci tagg turandoom peut-être dinañ ci ñëw ci bu ñu wax ci xam-xamam ak jaar-jaaram dafa wax ci xasida bi ne nee na moom Cheikh Ahmed Tidiane yi wala qad wulidtu wali ridan bi wilaadati wala qad wulidtu wali ridan bi wilaadati li wilaadati fi manhaji Tidiane yi wa li annani sumitu min amrin bihi fa jazalla fa jazal ilaahu fattan bi samani mu ne man Cheikh Ahmed Tidiane juddu naa waaye am na ngërëm ci ni ma juddoo cest à ni ma juddoo neex na ma mu ne ndax na ma juddu cib tiijaan c'est-à-dire moom tarixa bi daf ci juddu kon moom pappam tiijaan la yaayam tiijaan la kon ci mën manhaju yi ci mooy ci tariqa tijaani ci la juddu mu ne waaye wala an na nii summitu min amrin bihi fa jazal illahu fattan bihi yi mu ne kon man mii di wax ak yow Cheikh Ahmed yi nee ne tuddee nañ ma cheikh waaye ci Serigne Babacar tuddee na ma cheikh waaye ci ndigalu Cheikh Ahmed Tidiane kon Cheikh Ahmed Tidiane moo waxoon sëñ Babacar nag ma tuddee Cheikh Tidiane yi mii nag ma ko tuddee bu gannee àddina mu ne kon fa jazal ilaahu fattan bihi samaani mu ne kon maa ngi yal na yàlla fayal Serigne Babacar si mi nga xam ne moom a tudde Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu kon mën nañ wax ne looloo tax mu wax loolu nu mu juddoo kon moom nee na la juddu na di Tidiane waaye tamit li tax mu mu mu gërëm sëñ Babacar si li mu ko tuddee Cheikh Ahmed Tidiane Chérif bi nga xam ne ñun ñëpp moom lañ yaakaar wax naa leen ne kon papam mu ngi tudd Serigne Babacar si Serigne Babacar kan mooy waajuram mooy Serigne Seydi Hadji Malick Sy kan mooy juróom bu jigéen maam Roqiyatu Njaay boo ñëwee nag ci fi mu juddu ak jàngam fi mu jaar jàng na ci papam sëriñ Babacar si waaye nee na jàng na ci sëriñ Alioune Guèye bu ngeen di déglu ci waxtaanam da ngeen koy faral mu di ko tudd lu bari jàng na Serigne Aliou Guèye waaye am na ku ñu tudd say euh, Cheybatu Fall jàng na ci moom waaye wax na ni jàng na ci maam Abdoul Aziz moo defar làmmiñam ci langue arab ndax maam Abdou ku may am may la ci wàllu langue bi kon Serigne Cheikh mais jàng nañu ci ay naar yoo xam ne gànnaar lañ nekkoon daana wax ne sama nijaay yu nekk gànnaar jàng na ci ñoom kon ñooñu jaar na ci foofu ci wàllu njàngam waaye nag boo xoolee euh, ni mu dund ci wàllu xam-xam ndax dañu wax ni xasida bi nga xam ne bind na ko ci turandoo eh, histoire bi ndax xasida bi mu ngi ko bundee ci prison bi ndax dañu wax ne dafa am ñaar yoo xam ne dañu wax ne sëñ Babacar si daf ko waxoon ni amoon na yéene yu ma defoon yu ma bëggoon te ñaar moo ci des mooy benn xalwa boo xam ni waroon naa ko def te defuma ko beneen bi ci des mooy ma seeti sama taalibe yële nekk ca ca ndox ma te mooy côté jonwaar Serigne Cheikh nee na jox ma ko bi mu ko ko joxee ndeke xalwa bi mu doon wax il faut mu nekk foo xam ne dafay wéet dafa am risque risque ya moo waraloon mu dem moo tax demu prison dafa am ñaari aspect am na aspect politique mais am na aspect mystique aspect mystique bi nag mooy xalwa bi ko sëriñ Babacar waxoon te mu jël ko ne dina ko def te mënu ko def feneen foo xam ne il faut fa koy def dafay wéet ba mu demee ci ci xalwa bi nee na am na kayfiya kayfiya ci ñi nga xam ne ñooy yëngatu ci lasraar ñoom mën nañ la wax lan mooy kayfiya nee na mu am kayfiya bu moo xam ne daf ko yor ci biir prison bi mu xool kayfee bi liñ ko ci wax mooy kayfee bi loo bëgg kayfee bi nekk soppeeku rek dina ko soppeeku ne na booba mu ngi yor soccu moom Serigne Cheikh nee na soccu bi mu jël soccu bi ne soccu bi nekkal or mu nekk lango or mu ne soccu bi delluwaatal mu delluwaat na mu meloon mu xam ne lii lu wóor la ca la wax rek ni commencé nag ne comme fi ma jaar ak sama turandoor ba mu ma defal lii daal fokk ma dem ba yëgg ci moom ca la ko wax na xasida bii nga xam ni e, siiw na ndax dafa wax ni moom ci aada dafa juddu di tiijaan ndax papam tiijaan la yaayam di tiijaan ay maamam di ay tiijaan mu ne waaye bii nanga xam ne nag moom moom laay wax léegi mooy boo xam ne aada taxul moo tax ca la wax ne fa ilayka na muhammadan naadaani chiyamun tuxaqi jawharal insaani dafa wax ni li tax man ma ma jóg buur boog fëx jëm si ci yow Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mu ne li tax ma di ko def jëm si ci yow mooy dama gis gis ni yow sa tariqa bi yow ci sa bopp dangay def nit mu nite chiyamun tuxaqiku jawharal insaani c'est-à-dire jikko yi nga xam ne mooy wane valeur doomu aadama moom laa gis ci yow te nag yonent bi ma waxoon ne eh, innama bu'istu li utammima makarimal axlaaqi nee na yonent bi ma waxoon ne dañ ma yónni pour ma mottali jikko yi mu ne man nag ma gis ci yow jikko yooyu nekkoon ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax kenn werante wu ne Cheikh Tidiane Chérif mën nañ wax ne yàlla dafa jël léppam jox ko Sayyiduna Muhammad ba mu des benn mooy uluhiyya gi may yàlla ji joxu ko yonent bi waaye lu dul loolu rek jox na ko looloo tax yonent bi am tur yoo xam ne tur yàlla la ndax dangay ngay dégg ñu ne bil mu'minina raufun rahim kan la ñu wax Sayyiduna Muhammad Sayyiduna Muhammadin moom it bi mu ñëwee mu jël léppam jox ko Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ba mu des numbawa gi moo tax mu doon wax ni sama ñaari tànk yi teg naa ko ci bépp waliyu boo xam ne dina ñëw la ko commencé ci maam aadama boobu ba ñuy wol bufta bi beneen nitu yàlla dootul féetu Cheikh na Tidiane Chérif kaw kon moo tax ma nekkoon kon Cheikh yonent bi jox na ko léppam ba mu des yàlla yonent bi loolu tax booy seetlu yonent bi ak yàlla lan mooy différence xam nga ma ahmad turam bi njëkk ca kaw ahmad lañ ko doon woowe mais li do séparé diggante yàlla ak yonent bi mooy miimul mawti bi nekk ci ahmad miim boobu nga xam ne mooy tekki dee boo dindi woon miim gi rek bàyyi ko muy ahmad muy ahad cest boo dindi woon ahmad nga dindi miim gi rek boo liire muy ahad di firi yàlla kon miimul mawti moom la yàlla dugal ci ahmad moo tax mu wutee ak boroomam kon loolu nag moo tax Serigne Cheikh wax ne moom bi mu xoolee turandoom mu gis ci moom jikko valeur yi nga xam ne mooy tax nit nite moo tax dañu wax ne Cheikhu Tidiane Chérif yu xallibu nuxaasa lu lu atan c'est-à-dire mooy fekk benn përëm mu def ko muy or wala mu def ko mu nekk jama noonu lay te moo tax dañuy wax ne Cheikhu Tidiane ni yonent bi def laay def mooy boo ko soppee mu soppi la waaye Cheikhu Tidiane boo ko soppee it moom mu soppi la moo tax nag moom Seyd Serigne Cheikh mu waxoon ni fa ilayka ci yow yabnu Muhammadin yow doomu Muhammad parce que euh, euh, Cheikh Ahmed Tidiane papam Muhammad bi fatin miimi maanaam miim bi dañ koy maa fàttal noonu la papam tudd mu ne naadaani ilayka yabnu Muhammadin maanaam li ma xëcc jëmmale si ma ci yow mooy ne dama gis ay jikko yoo xam ne mooy tax nit nite ndax tarixa bi nag loolu moom mooy cosaanam mu ne kon nag loolu moo ko poussé ci turandoom mu ne waaye mu gis ne itamit wa rakimtu naxwaka dahra kullu ajibatin min xikmatin wa malihati awzaani mu ne pour ma jëm si ceew nag lépp loo xam ne eh, maanaam booy tukki da ngay ut waruwaay mu ne waruwaay yi mu dem lépp loo xam ne mooy kéemaan ci wàllu xikma ci wàllu uh, nu ñuy defee benn poème uh, ba mu rafet nee na yooyu yëpp ma bokk ci waruwaay yi nga xam ne moom laay war pour jëm si ci yow cheikh mu ne nag wa ko fii wa himmati fi raxbati bi majaahilil ayaati xad ka mu ne nag cofeel gi ma am ci yow mooy ashawq fii ka ci yow cheikh wa raxbati wa ak sama yitte fii raxbati ci sama xemmemteef bi ma jaahilil ayati xad xaadaan yi mu ne waaye nag ci li nga xam ne eh, ci kéemtaan yi nekk ci yow nee na loolu moo ma omat ci yow ma jëm si ci yow Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu kon pour wax la ne kon kon loolu moo tax mu def xasida boobu ci moom dem na ci dem na ci biir booy wax ne turandoom ndax xasida yi dañu li mu bind ci turandoom dafa bëri moom Serigne Cheikh kon loolu dama doon résumé rek pour wax la ni yàlla defal la mu topp turandoom waaw moo tax daana wax ni woy naa sama turando te juddooguma loolu nag boo ko waxee nit ko ordinaire du ko mën a gëm waaw ndax it am na ñoo xam ni e, e, yàlla may na leen ba ñu mën a wax ci seen biiru yaay loolu nag du ku xam wallu tasawuf doo ko weddi mais kon mën nañ wax ne kon côté boobu ci la Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy radiallahu taala anhu fa la jaar ci ak turandoom gën yaatu mais boo seetlu moom ci wàllu xam-xam am na cest à moom nitu xam-xam la woon boo xam ni mosul nangu xam-xam boo mën a am yaa xam jullit nga wala xam du jullit mais dina reconnaître ni am nga xam-xam c'est-à-dire moom du xool ne nit euh, euh, jullit nga wala doo jullit te tamit dañu wax ni euh, xam-xam puso la rek bu nekk ci biir géej xale mën na ko for mag mën na ko for ku gëm yàlla mën na ko for ku gëmul yàlla mën na ko for. daana nangul ñëpp seen i xam-xam daal. daana ñëpp seen xam loolu nag dinaa wax rek ne li tax moom mu mu yem turandoom nee na dafa mel ni dama gis ni. ndax xasida bi gudd na mu ne waaye dama xam ne bi ma ñëwee ba yow yegsi ci yow ndax am na yu ma tëb ci xasida bi ndax dafa gudd te temps bi duñu ko may mun dafa wax ne ceet kanam mu ne wa raaytu annaka li risalati xaamilun wa alimtu annaka baadu sirru amaani mu ne bi ma yegsee ci yow gis naa ni risaala bi sayduna muhammad yore woon mu ne gis naa ni daal cheikh yow moom nga yore ndax yónnent bi dafa ñëwoon pour defar nit ñi Seexu Tijaan yi dafa ñëw pour defar nit ñi moo tax bu ma juumal am na xasida boo xam ni maam euh, Cheikh Ibrahim Niass wax na ko ci moom wa qiila lahu fi adrati bi ya ahmad unzil yufiidu du al anaymu mu ne Seexna Tijaani Chérif benn trésor la woon bu rëy bu mag bu nekk fu sori ca xadratul xay bi mu ne ah maam bàyyi ne ko wàcc sil yow cheikh ndax euh, addina si wala ñi nga xam ne ñooy nit ñi mën a jëriñu ci yow kon pour wax la ne kon ñoom xamoon nañ ko mu ne nag mu xool ni mu ne waaye tarixa bi nga xam ne moom la mu ne secret bi nga xam ne moom moo nekkoon ci yonent bi yonent bi jox la ko mu ne nag haada nizaamun fil kitaabi muqaddasun qad qalla xayruka anhu bil ityaani mu ne mu ne loolu nag secret boobu ak tarixa bi yëpp yi ci aju mu ne nga def ko muy programme programme bi nag boo demee fii fil kitaabi muqaddasun maanaam boo demee ci alquran lu fa nekk la ndax tarixa bi eh, Cheikh Tidiane waxoon na ni tarixa bi dañ ko sos ci alquran ak sunna mu assasatun ala alkitaabi wa sunnati mu ne waaye ni ko defee programme yow Cheikh sama turandoo mu ne xad xal la lott na xad xal la mm, mënuñu keneen mënula indi ku ko ku dul yow xad xal la lottu nañ anhu ci indi programme bu mel ni tarixa bi nga yor ku dul yow rek mënu ko mënu ko mu ne lu tax mu ne tabaxtahu wafqa zamani wa xukmihi wa azamtuhu bi inayatin wa damaani mu ne waaye non seulement da nga ko appliqué da ko appliqué mu dëppoo ak jamono ab xool nga boo xoolee Cheikh Tidiane Chérif boo xooloon jaar-jaaram moom turandoom bi mu jàngee bi mu mokkalee alxuraan ci juróom-ñaari at ci bi muy am sept ans la mokkal jàng té téere yi funoon yi yëpp moom Cheikh Tidiane Chérif turandoom ci ñaar fukki at ak benn ci la nekk war mufti maanaam bu ñu ko doon wax ci yéen ñi jàng tubaab mooy mu nekk recteur université ah, ci ñaar fukki at ak benn ca la commencé nag di wër di xool ne moom li mu bëgg nekkatul rek xam-xam buy nekk ci téere mu ne bu mu demee nag tarixa bu nekk jël na ko jël na tarixa xaadiriya jël na nasiriya jël na siddiqiya jël na naxsabandiya mais bi mu ñëwee nag bu toog xasru abi samxun Euh, xalwam bu yàgg boobu ci la ko turandoo bam ci la ko yonent bi feeñu ne ko tekkil buum gi mu tekk takkoon ci loos bi doon jàmm yàlla ba sonn mu ne nag ca la ko wax ne euh, fatruk kullama bihi axasta ata tafuuta kullama waita min xayri xalwatin wala itisal mu ne tariqa boo jëloon rek bàyyi ko ana murabbika wa anta di mu ne ko man cheikh man yonent bi man maa la yar yaay sama doom mu ne wa sawquka nag abaru kullu musnadin sëriñ boo mënoon a jàpp daal xamal ne sëriñ bii nga xam ne mooy sa sëriñ léegi mu yonante moom mooy gën a baax ci sëriñ yëpp ca la bàyyi nag mu jox ko istixfaar jox ko euh, salaato ala nabi jox ca ca fin siècle ba na ca la ko jox laa ilaha illallah ndax weer bi ñaar yooyu ñoo woon cosaan yi mooy istixfaar ak salaato ala nabi yooyu nag xam duñ ci xóot lool moo tax sëriñ Cheikh wax ne moom dafa ko def nag mu ne ko nag bu fi sonnati di def xalwa ndax tariixal xalwatiya seen awraat dafa metti moo tax boo xoolee werdu tiijan mooy werd bi gën a simple dafa dafa cest dafa gaaw dafa yomb te dafa neex cest à du la a temps bu bari te mu nekk bonus boo xam ne kenn xamul nu mu toll moo tax mu ne kon fa tabaxtahu wafqa zamanin wa xukmihi cest à daf ko da ko def mu dëppook jamono ndax bu fekkoon ne da ngay toog di zikkar su bu suba kon doo liggéey mu ne nag waaye nag nga fexe ba ñoŋal ko waaw ñoŋal ko ba nga xam ne waaye nag ci loolu ñoŋal gi yëpp yaa ngi ko teg ci ci ci ci ci jagle ci jagle nga teg ñoŋal gi nga ñoŋal tariqa bi ak garanti bi nga xam ne bi la ko yonent bi du jox te mooy sa maam mooy yow cheikh mais ne bi mu la ko jox ak garanti la àndal mu ne ko cheikh yow daal dafa mel ni fa ka annaka al furqaanu fi yi xaqan wa fi l idaai li yi mu ne ko yow de cheikh dafa mel ni eh, alquran bi muy wàcc Makka ni mu wàccee boo wedam loo arab yi mënoon a wax mu ne yow daal dafa mel ni bi nga ñëwee c'est-à-dire bu Cheikh xam-xamam buy wax ci wàllu xam-xam turandoo bi lay wax ne buy wax ci xam-xam mu ne dafa mel ni yow ni alquran fexe woon boo bu alquran waxee kenn dootul mën a wax ndax danga xam ne bi alquran di wàcc ci madinatu mu naw ci Makka booba fekk nay foofu ay poète nga xam ne poète yi boo amoon marchandise sax bugg ko jaay da ngay ut benn poète mu yàlla la bi ba bu amuloon valeur sax gaa ñëw di ko jënd ndax mu mun a wax ci moment boobu a la yàlla yónni Sayyiduna Muhammad bëri jox ko alquran alquran di ñëw di wax loo xam ne ñoom mënuñ ko te comme ay poète lañ ñoom bu ñu ñëwee dañuy foog ne alquran poète la bu ñu defee benn misaan maanaam benn benn rim boo xam ni alquran ñëw wax loo xam ne dina dina mel ni rim te du rim. xoolal wal aadiyaati dabaa fan muuriyaati qadxa xam nga loolu dafa mel ni rim mais du du du du poète poésie kon loolu mu ne nag dafa mel ni cheikh moom bi mu ñëwee noonu la mel ci xam-xam ndax cheikhu Tidiane Chérif bokk na ci li gën tax mu toog Faas mooy dafa ñëw jommal eh, ñi dëkkee Faas ci wàllu xam-xam cheikh Seydina Tidiane noonu la meloon ci Faas cheikh nag Serigne Cheikh ne nag loolu moom bokk na ci li ko yem ci cheikh moo tax mu ne dafa mel ni daal yow ni alquran defoon arab yi ca ba muy wàcc mu ne dafa mel ni yow noonu nga mel ci cheikh ci xam-xam yow mu ne nag dafa mel ni alquran bi fa kaannama axtalatat bi ruuxika kulliha ayatuhu fadlan min arrahman mu ne dafa mel ni daal alquran dafa mel ni deret la buy daw ci yow dafa mel ni dafa jaxasoog sa deret te mooy euh, mu nekk alquran buy dox bu defee muy alquran bu waxee muy alquran bu nelewee muy alquran lépp cheikh ne na alquran la mu ne waaye nag loolu nag fadlan min arrahmaani mu ne loolu nag ngeneen la boo xam ne yàlla la ko jox ndax nag innal fadala bi yadillahi yuti man yashaw ne nag ti loxo yàlla nag ku ko neex la koy jox kon kon foofu la jaar ak turando mu ne ko nag wa jaaltu dunia al alamina shaqiqatan mu ne Cheikh Cheikh Tidiane Chérif mu ne dafa def àddina ñaari àddina yi moo am àddina àllaaxira ak fii mu ne nga fexe ba seexale leen mu ne nag li jannatul ulia bi kulli maani nga fexe ba boo seexale àddina ak àllaaxira mu ne nag haadi li tarbiyatin wa tilka li raxatin maanaahuma fil l xayri wal yi mu ne mooy bu fekkee ne bi àddina bi ñu nekk li tarbiya fii ngay liggéeyee lu lay jëriñ ëllëg mu ne nag wa tilka li boo fekkee ne nag def nga li nga xam ne moom lañ la sant bu ëllëgee boo demee fa li nga noppalu mu ne maanaahuma ñaar yi mu la wax nag yaa ngi koy jaar fil xayri ci yiw wal ixsaani ak ak rafetal bu boobaa boo demee na le mu nekk euh, noof laay moo tax mu ne wa haadi bii fii àddina li tarbiyatin nga def sa tarbiya def sa euh, formation mu ne nag wa tilka li raaxatin boo demee fa ra nga noppalu donc lii ci en résumé moom la wax ci turandoom euh, moom Serigne Cheikh Al ñu gis ne aussi tamit ku dafa ku nawloo xam-xamam lam te it ku am habitude euh, di dialoguer ak nit ñi comme dégg nañ ci benn xissa boo xamante ne ni Serigne Moustapha moo ko nettali mu ne man sama baay daan waxtaan ak sama maam mu bañ. te it suma maam bu ko mayee nopp tey daal di ne ah doom maa la jur de waaye de li nga wax am na waaw. xam nga moom dafa mën a mës a na nangu ne eh, eh, daana wax ni maanaam yéen ñi am maanaam téere du jàngal nit kilifa mooy jàngal nit daana waxit ni bàyyi leen fi téere yi tey xalaat kon xam na ne gëm na c'est-à-dire waxul ne téere amul kii mais. Euh, day la bëgg a wax ne loo jàng-jàng mais da ngay réfléchir di xalaat te daal di dafa mës a nangu débat contradictoire ndax da daana werante Serigne kër si te loolu nag du lu bees ci diine ndax Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Omar ibnu Xataab daana weranteeg moom aaya yonent bi daana wax dara yu abu Omar ibnu Xataab ne ko ndax dama lay lay bu fekkee ne aaya la bu wàcc duma ci wax dara waaye bu fekkee ne sa xalaatu bopp la man am naa ci xalaat mais aaya bi dañuy wax loolu tuuti rek aaya bi wàcc Faraw Omar kon pour wax la ne kon euh, loolu du lu lu bees ci diine ndax looloo tax moom nag Serigne Cheikh yàlla mayoon na ko mu ñeme jonjo ak papam jonjo bi mooy bu Serigne Babacar waxee mu ne ko ah man daal gisoon naa ne nii moo gën mais nee na Serigne Babacar dem ba wax ne ah. bu ma waxee ak yow ñaareel rek nga yey ma loolu dafay wane ni ku nangu woon débat contradictoire te it daana wax ni ñoom Serigne Serigne Aliou Guèye yi nga xam ne di ba tudd bëri la nee na daana leen laaj di leen laaj ba ñooñu léeg-léeg ñu xaw a xundu mel ni eh, demoon nañ bu jàpp ne sax moom peut li ñu wax ci wàllu cëriñ wàllu soufisme bi daf ko gëmul mu ne waaye loolu yëpp nag nit ki da nga war a utiliser sa xel di di xel xelaat ndax nag yàlla alquran bu muy wax borom xel yi lay wax fa'tabiru yaa ulil absar laana wax ni yéen ñi am intelligence di réfléchir de leen di réfléchir parce que nag yàlla buy wax euh, borom xel yi lay waxal moo tax boo gisee alquran di wax ne law kunna nasma'u a naqilu ma kunna fi asabi sa'ir mu ne bu ñu amoon xel di xelaat kon lii nga xam ne moom lañu nekk ci coono duñ ci jaar ndax xel nag dañu ko def pour nit di ci xel li loo xam ne dana ko jëriñ ok foofu ñu jàngee fa ni borom xam-xam la woon parce que kuñ doon ñemee euh, weranteeg Serigne Babacar Sy nga xam ne taxaw na ni bu ma ruslu woon suma waajur bu góor ku ma woo ci photo dinaa la dinaa la wu dinaa la wuyu si donc euh, kooku weranteek moom ci xam-xam it di dialoguer ak moom di xëccoog moom ci ay wax kooku kon loolu jàpp nañ ni mën nañ jàpp ci ni moom ab waliw la woon. xam nga moom boo seetloo Serigne Cheikh. damay wax ne daal la xam nga si euh, sunu wayjur bële Ahmed Khalifa Niass nee na naal moom ci waxinam mu ne Serigne Cheikh daal maate yu yàlla la c'est-à-dire yàlla kon neex mu bindee ko noonu euh, moom mën nañu wax ni euh, c'est noom homme ci dimension bu nekk xam nga wax gis nga dimension xam-xamam dinaa leen jox rek benn nettali yoo xam ne maa ngi ko jëlee ci ci ki nga xam ne moo sësoon rëkk ci moom muy alaaji Cissé Jinge dafa ne Serigne Cheikh dafa dem arabu saoudite booba roi Faysal ma fa nekk Fahad Faysal kon bi mu ñëwee mu ne ko man daal dama bëggoon wax ak yow te mooy dama gis ne diine ji foofu la wàcc waaye ñun ñoo ko bokk ma gis doxalin boo xam ne yéen a ngi koy def te man d'accorduma ci ma bëggoon nag ñëw foofu wax la loo xam ne d'accord ma ci mu ne ko nag léegi roi bi ne léegi boo ñëwee dinaa la jëlal hôtel nga def fi weer lépp loo d'accord da nga bind ko bi mu waxee loolu mu ne ko weer bëri na 15 jours rek baax na nee na mu dem mu loyal ko hôtel bi mu nekk fa ak moom nee na mu am quinze jours bind ko bi mu toogee moom mu di ko wax yi mu d'accord daf ko ne yéen. da ngeen di toog fii fii la alxuraan wàcc boroom xam-xam yi nekk fi ñii nga xam ne koo ci waxal boo ne yonent bi ñu daanu boo yàlla ñuy yuuxu daanu ci su parce que ñoom gëm nañ ba pare mu ne est-ce que du ngeen fe jéem a jéem a pour wax la rek di gisama xalaatam du ko ragal fenn mu ne est-ce que du ngeen jéem a jël boroom xam-xam yi nekk fii ci dëkk bi jàng nañ arab ngeen fexe ñu jàng beneen làng cest duñu dire ñu jàng anglais jàng tubaab bu ko defee ngeen mën a fexe yóbbu leen Europe yóbbu leen asi yóbbu leen États-Unis ak pays Occident yëpp ngeen yóbbu leen foofu bu ko defee ñoom ñu mën a yóbbu mission yonent bi foofu looloo tax dëkk yi yoo dem nga gis ñu defa centre islamique loolu ci xilaatu Serigne Cheikh la amee moo tax ñu commencé nag jël ñooñu di leen former jàngal jàng nañ làng arab ba mën ko macha allah ñu jàng nag langue euh, anglais moo tax foo dem ci en Europe États-Unis feneen foo gis danga nga gis fekk euh, euh, centre culturel islamique loolu ci xalaatu Serigne Cheikh la génne beneen bi ci des mooy mën na ko yéen dama seet ne bu aj bi ñëwee xat yu yi ñuy rey mooy xar yi da ngeen ko fay bàyyi ba mu yàqu ba da ngeen di jël ay bulldozer ñu di ko yóbbu parce que dafa yàqu te yéen xam ngeen nii pays jullit yi nga xam ni dañoo ñàkk mën ngeen koo euh, garde ba nga xam ne da ngeen koy def ci ay ay concentrateurs yoo xam ni da ngeen ko mën a jël envoyé ko dëkk yooyu ñoom ñu mën di ko jëriñu ca lañ commencé jël carcasse yooyu di ko di ko di ko euh, defar di ko envoyé en Afrique loolu ci xalaatu Serigne Cheikh la génne nee na bi yooyu yëpp donc pour wax la ne moom bu yàgg a gëm xalaat boobu la kon loolu Serigne Cheikh jaar na fi ak ñoom kon beneen bi ci des mooy e, ci ci gëm xalaat mosul nangu ne maanaam maanaam nit wax rek mu weddi waxam dina la nangul li nga wax de waaye nag dina indi xalaatam te nag loolu mooy boroom xam-xam moom yeggoon na ci ci ci gëm xam-xam mooy da nga doon dégg loo xam ne danaa la ko wax tey mooy bëri na fii loo xam ne doomu soxna yaa ngi koy def léegi Serigne Cheikh moo ko fi njëkkee xool nga maa ngi déglu Mansour Jamil nee na bi muy jàng université di dégg ñu commencé di ko citer ñoom Socrate ñoom Aflaton ñooñu te nee na loolu dafa dégg déggoon nay Serigne Cheikh di ko citer te booba. moom demagul université mu doon laaj xam nga lool na bu ñu la koy wax ci doomu soxna xam nga ne naa la euh, ci li mu réalisé maanaam da nga doon dégg muy toog ñoom Socrate ndax am na ci xasida yoo xam ne day cité ñoom Socrate mal munta Socratu wal malawul ula tabiuhu illa raxbatun xool nga yooyu yëpp fa himaamu mu ne wakazal aflatun muy tudd aflatun moom ngeen tuddee Platon mu ne fi araihi ma naqdu xararahu wala al ibramu waaye nag wa man lam yaxudd muhammadun fi ilmihi fa ilmu fi xasaratu wa mu ne cité na ñooñu ñëpp mu ne waaye nag muhammad nag moom ku waxul xam-xamam mu ne daanaka bu fekkee ne poète nga ngay woy kon sa woy bi pertement la beneen bi ci des mooy seetlu nañ ne moom Serigne Cheikh euh, daana am lu ko naqari te dinaa la ko wax ci benn xasidaam boo xam ni daf ko wax ci benn koo xam ne du jullit mooy al euh, al du domoro defe naa dégg ngeen ko yéen ñi jàng tubaab bañ ko reyee rey bañ ko reyee naqadi Serigne Cheikh ndax boroom xam-xam la te moom xam-xam la gëm foo mën a bokk mu toog fii di jooy c'est-à-dire xam nga ne bu ñu jooy moom boroom xam-xam bu jooy poye pilim lay jooyee ca la ko commencé di di wax al du domoro nañ ko reyee mu ne nuxaatu xel mi fii sa sabaaxan dauna nabki dahra dahran aldumuru hutaafu shaabin wa zuamaau fiha hutaafun xawla dunya yaduuru mu ne laqad xajazuuhu tugyaanan wa juuran hal arafuuhu yatqa aw yajuuru kama qataluuhu xurran abqariyan ila gaayaatihi lfadlu yasiiru mu ne mu dem ba mu yàgg mu ne fa muuru la yamuutu bi mawti jismin wa yamlauhu bi madjaihi suruuru c'est-à-dire wax na ci ci ci ni ñu ko reyee ba mu ne nag rey bi ñu rey Aldo Moro mu ne du tax mu mu mu dee waaw c'est-à-dire rey nañ ko yar yaram mais xelaatam du fi jóg mais lu tax mu wax mooy xam-xamu dafa na woon xaw-xamu euh, Aldo Moro men soo suwaan laay ñoo ñëpp woy na leen lu tax lam leen woye mooy xam-xam la moo tax mu woy leen waaye du diine moom ku daan woon gëstu la it su ma dégloo bu baax ci li nga jot a expliqué fii ku daan gëstu la ci wàllu diplomatie doon wër kàngam yi et puis doon gëstu leen ci xam-xam ci wàllu seen xam-xam naw loo leen isit seen xam-xam. danaa danaa la ci net ci lii mooy bi muy def parti bi xam nga def na fi parti politique kon ci côté politique liggéey na ci liggéey boo xam ne la la taxoon mu def politique politique politicien taxoon mu def woon parti bi. mu ne ndax da booba dafa gis ni ñi fi nekkoon tëralin bu ñuy tëral bu tëralin boobu wéyee sëriñ si dootuñu am benn gëdd ndax booba ñooñu jéem a jéem a daaneel euh, nitu daara yi moo doon seen bëgg-bëgg moom ba mu ko xamee la wax ne nag loolu moom dina ci jóg doonte booba Senghor a fi nekk ak ñoom Lamine Gueye dañu wax ni ci ca ci waaye booba ñu bëri dañu àndoon ak Senghor waaye moom comme gis na ni fii ñu ñu jëm buñ demee ba am li ñu bëgg ñoom sëriñ si dootuñu am jàmm ca la ñu wax ne la dem gis euh, sunu woy sunu maam Hadj Ibrahima ñas ci ñu ko jàppe la bokk bu ñu def parti taxawal parti boobu parti bi mu ngi tuddoon PSS parti solidarité solidarité islam euh, sénégalaise waaw lu taxoon mu ne yooyu. doomu daara juddoo ci daara màgg ci daara wëlbatiku def parti politique mu ne leen nag bu fekkee ne dañuy def parti politique bi bu ñu ko defee mu nekk parti religieux rek dañ koy rejeté moo tax ñu ne nañ ko def PSS nga xam ne xam ne te doxal maanaam doxalin bi doxalin diine lay doon mais ci kaw euh, kii wu république lay nekk waaw nga xam ne dootul du am benn euh, luy wane ne parti islam du du tënku fenn daal lii ne ci islaam la kii ci kii wala changement ok ko ñu ne loolu ci la ñu jaar moom maam euh, ak nu mu euh, Gaynde Fatma ak ñoom maam Baye Niass surtout maam Baye Niass jàppale woon na ko ci campagne ak lépp bo dem nañ bo nee nañ sax élection yooyu man dégg naa ci euh, ki ki yoroon PIT dans Soko mu ne année boobu ne na Serigne Cheikh moo gàññoon élection yi mais dañ ko sàcc donc pour wax na ne kon doomu daara bu jaar foofu loolu nag euh, Souleymane bu ma la ko waxee da nga laaj ne waaw moom mu jàng euh, diine nan la def ba mënoon a def loolu xam nga nekk na fi ambassade nekk na fi ambassade te ba muy dem ambassade lettre de créance bi mu koy yóbbu nee nañ bi muy dem dafa yóbbaaleel gaynde xam nga de histoire u gayndeem googu de gëm ngeen ko man histoire u gaynde gi benn góor moom ma ko nettali te nee na ki ko nettali mooy góor gi nga xam ne moo doon garde euh, kii parc an bi nee na bi Serigne Cheikh ñëwee di jël si gaynde gi moom la fa fekk mais nee na bi bi mu ñëwee ba woon ko autorisation bi nee na pour mu ànd ak Serigne Cheikh pour won ko gaynde gi mu war a jël nee na moom dafa yëg si rek Serigne ubbi nii rek Serigne Cheikh ubbi kaas bi rek dugg ci biir góor gi nee na moom bi mu gisee Serigne Cheikh dugg ci biir kaaf bi góor gi moom na man dama tiit ne daw yéeg ci kaw di sëpp Serigne xool ni naka la ko gaynde gi di yéeye ndax moom jàpp na ne gaynde gi na lekk Serigne Cheikh mais na comme ñoom jàng nañ psychologie gaynde nee na bi mu gisee Serigne ñëw jël loxoom teg ko ci boppu gaynde gi gis gaynde gi wàcce geen gi mu xam ne gaynde gu def seen Cheikh dara mu ne ndax gaynde bu la naree mat wala mu nar laa faat day lem geen gi mu ne waaye dafa gis Serigne Cheikh laal gaynde gi mu wàcce geen gi mu raay ko ba ba ci calle jëlaat jël ba bi nga xam ne moom la waroon jël yóbbu ko ne nañ jël na gaynde gi dem lu yàgg te gaynde gi fi mu tëdd bougé wu fi xam nga loolu euh, may may yàlla la mais foofu foofu ci affaire gaynde bi ma ñëw fa tuuti euh, affaire mystique la wala. xam nga loolu wóolu sa boroom la ndax dañuy wax ne ku moyu sa ku ragal sa borom rek lépp lu yàlla bind ragal la waaw nga lu ma bu baax maanaam boo ragalee sa borom lépp lu yàlla bind ragal muy nit muy leneen loolu nag cër la kon loolu boo gisee ñu naan diw dafa am fit ngëm yàlla boo tax koo gis ñu ne dafa am fit rek ñu ne dafa gëm yàlla ba tax mu am fit loolu nag moo taxoon mu jël gaynde gi jël ko fii ba muy dem fale mu yóbbaale ko ndax dañu wax ne comme waaje nu mu tuddati booba taa dañu doon wax ne eh, Sadat moo nekkoon gaynde en Afrique mu nekkoon buy dem nag gaynde nag boo ko yóbbaalee doomu gaynde daal jox nga kado donc bi mu demee jox ko ko am na sax poème bu mu ca def damay mokkalatul poème bi ca lañ dem bañ tuddee di ko wooy amir shuara waaw mooy prince su poète yi te booba temps Ahmed Shawqi moom lañ doon wax amir shuara mais poème ba rafetoon na rafet boo xam ne dañ mujj di ko woone amiru amir moom Serigne Cheikh kon loolu jaar na fa ci ci politique mais Serigne Cheikh eh, maa ngi dégg ci sunu góor googu ma la tudd léegi mooy Cissé ji nga xam ne mu nekkoon ak moom mu ni benn directeur école bu nekkoon Tivaouane moo doon ñëw ci kër gi di jàngal Serigne Cheikh tubaab waaye dem na ba ci ci ci mën tubaab bu nga xam ne boo déggoon muy wax da ngay da ngay laaj maanaam li nga xam ne xam nga mos na fi wax ne Senghor bi mu wax ne poète la parce que nee na Serigne Cheikh dafa Senghor mer benn bés ne neen maa ngi dégg na Cheikh Tidiane naan du ma poète commencé mu ne ko dëgg la mu ne man mu ne ko Serigne Cheikh ne ko effectivement du poète maanaam li ma li ma gis nga bind ko yëpp ay conneries la donc yooyu yëpp dangay wax ni. Eh, am yàlla c'est-à-dire yàlla dafa am lu mu ko sedd waaye xam-xam bi mu am it daf ko sonn de xam nga danga nga daa nga dégg ñu ne Serigne Cheikh euh, dañ koo sol ba mu déggee kàddu boobu mu ne leen bu ngeen fekkee ne dañ ma sol dem leen laaj sondelu Tiwaawan yi ndax li mu daj doon taal guddi bëccëg moo tax dem na ba wax ni ci benn xasi dem na afnaytu asbaabal xayaati dirasatan wa balawtu kulla wasaili xirfaani Euh, moom Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy suñ ko seetloo ci wàllu diplomatie dekk na fi doomu doomu soxna bi nga xam ne euh, bokk na ci njëkk dugg ci géew politique ba pare it sumbi yére doomi soxna yi teg ko dele di solu ay costume ak yooyu nuroo ñi nga xamante ne nii ñu ngi ci géewu politique bi te it ah doon leen doon leen teg baaram et doon dal seen i kaw ci lépp ci wàllu ak ak yelleef ci doomu soxna ci jamono boobu noonu. wala Serigne Cheikh. bokk na ci li nga xam ne moo ko fi dindi Serigne Cheikh mooy doomu soxna bi fi njëkk a sol costume muy benn ñaari bi Serigne Cheikh moo fi njëkk doomu jënd bu jënd oto moo fi njëkk jënd téléphone ñu ngi nettali ne xam nga Serigne Babacar si bu doon dem tool ya dafay jël am na benn kiiwu commandant bu fa nekkoon moom lañ doon abbu mu yóbbu ko sëriñ Cheikh dem jënd benn oto ci almaay indi ko ñu bés ne ne sëriñ mu wax sëñ Abdou ne ko bu sëriñ euh, sëñ Babacar bu naree dem tool ya rek na ñëw dugg ci oto bi nee na keroog sëriñ Cheikh bi sëñ Babacar génne sëriñ Cheikh moo ko jël dugal ko ci oto bi conduire ko bu yóbbu ko nee na bi mu ñëwee te kat biim sëriñ Cheikh jënd loolu dañu ñëw boole ko sëñ Babacar na jënd na oto mais bi mu ko yóbboo indi ko mu ne ko ah lii baax na fi kat kon xam nga foofu amatul lay beneen bi ci des mooy mu in mu indi fa téléphone ñu ah, indi na fa téléphone comme quoi mu xaar ba gouverneur soxla sëñ Babacar woote ci téléphone bi mu ne xaaral mu dem jël sëriñ Babacar booba téléphone du toxu mu jël sëñ Babacar mu ñëw toog euh, ñuy wax moom muy interpréter sëñ Babacar ah mu ne ah lii kat baax na fi kon foofu amatul lay yére tubaab yi dégg naa ñu ne maam soxna Astu Kan dafa ko boole sëñ Babacar ni Seex Tijaan day sol yore tubaab nee na bi muy ñëw di wuyu si sëñ Babacar mu ngi sol pantalon waaye sol jàllaabe nee na bi mu toogee sëriñ Babacar xool kii mun dafa mel ni yëre tubaab nga sol de nee na sëriñ Seex na ko ndax dafa arab mu ne ko ah ci arab nag mu ne ko ndax am na yoo xam ne dafa aada rek mu ne ndax eh, xam nga sëriñ Cheikh eh, li tax muy def la mu ne mu ne ab jullit soldat la mu ne te soldat xeexkat la xeexkat nag war nga sol loo xam ne bu bu bu ne boo ne bëri rek mën a tëb mu ne waaye am na solin yoo xam ne boo ko solee doo doo ko man garaam mbubb yi nga xam ne danga koy danga nga ciy dugg moo tax Serigne Cheikh moo njëkk a démystifier loolu du sol yëre tubaab euh, xam nga yore tubaab lañ mais du yore tubaab loolu kon Serigne foofu la demiti beneen bi ci mooy conférence conférence Serigne Cheikh moo ko fi njëkk a def te xoolal bi mu fi njëkkee def conférence boo xam ne en ci tubaab discours bi sax danaa la jox kii bi kele euh, bi nga jël ko l'islam et la négritude xam nga doomu daara nga ñëw di wax ci philosophie ba indi isla l'islam et la négritude te booba séri euh, nu mu tuddee euh, di ki ma waxoon négritude Senghor moom mu ñëw def ci benn benn benn expo tuddee ko l'islam et la négritude mais keroog Serigne Cheikh tubaab yi mu lakk jaaxal na ñu bëri kon pour wax la ne kon doomu soxna boo xam ni am na loo xam ne fexe na ba complexe bi waroon a am boo yooyu yëpp Serigne Cheikh fexe boo jëlee leen ci ci ci domaine boobu. biñ ko seetloo it ci loolu yëpp moom Serigne Cheikh euh, dafa yàgg taxaw diine lislaam te it am ci vision que ni xam na ni jamono ngi ñëw ndaw ñi dañuy am solo lool. te it dégg nañ sax ci ay ci ay ay ci ay xalaat yi nga xam ne ni euh, moom joxe na ko li waral mustasidina wal mustasidaat ci daayira boobu xam nga dañu wax ni moom euh, nit li ma waxoon ne ku universel la pour wax leen ne moom dafa mës a bëgg ndaw ñi am taxawaay bu bu am solo ci diine ji moo tax dana danaa leen ko wan mooy xasida boo xam ne daf ko defoon ci ndaw ñi tuddee ko yaa ayyuhal awlaat xam nga bala may nga may ma rek benn parenthèse boo xoolee Serigne Cheikh Serigne Cheikh bokkuloon ci Serigne boo xam ne day toog rek di dundee àddiya transport Serigne Cheikh liggéey na ci Serigne Cheikh liggéey na ci industrie parce que moo fi indi Sococim moo fi indi SIB mais ci xalaatu sengoor moo taxoon mu mujj jaay SIB sëriñ Cheikh daana bay gerte. Serigne Cheikh nekk na fi commerçant kon yooyu yëpp euh, demoon na ba nit ñi homme d'affaires bi lañ doon gën a gis ci wàllu cëriñ bi te fekk na nag cëriñ bi euh, dafa xamoon ne dafa am fu jamono di jëm mu préparé ko ci wàllu am àddina looloo tax li nga xam ne moom la doon def mu mën ko def imagine rek euh, Souleymane Serigne bu neen yow yaay dama ne dama ne ngeen baal ma dama ne Serigne Cheikh. Eh, dafa am lu daje ci moom loo xam ne ñaareel bu daje ci nit nga beew xam-xam mën na tax nit beew kenn werantewul am na xam-xam ñaareel bi am-am mën na tax nit beew kenn werantewul ne am na xam am na am-am ñetteel bi taar mën na tax nit beew te kenn werantewul ne am na taar ñetteel bi mooy askan te kon werantewul askan bi mu ba mu ne waaye yooyu yëpp nag xoolal mosoo gis mu doxee ko mosoo gis mu waxee ko. beneen bi ci des mooy gëdd bi mu joxoon doomu aadama netti lañ ñu bu doon recevoir nit xoolal mu xamu xóot wuti ci président bi ak xale bu ndaw loolu moom jàngat la bu rëy boo xam ne képp koy joomu soxna rek war nga jàng ci moom loolu mooy bu lay recevoir du xool ne président lay recevoir ni mu cest à bu fa Abdou Diouf ab Ablaye wadd doon dem wala yow nga di fa dem nee na ni muy ab lay Wade ba ñëw noonu la lay recevoir. ndax nee na non seulement moom bu la joxee waxtu ak fonk rendez-vous loolu nga xam ne manqué na léegi xool nga bu la joxoon rendez-vous nga am moom audience boo ñëwee Baye Omar Samb da lay wax ni bu heure bi jotee da ngay ñëw taxaw ci bunt bi bu la waxee ne 10 heures 10 heures moins nee na na nga taxaw waaye bu laal bunt bi bu heure bi jotee rek moom mooy nga dégg moom mooy ubbil boppam nga nga dugg téye sa loxo moo lay yóbbu bu nga toog boo toogee mu doog a toog. donc loolu nag wutul ci xale wutul ci mag utul ci borom alal nga utul président ñëpp lay recevoir ci même façon kon yooyu nee naa moom euh, nit ci boppam la fonk nit ci boppam la fonk beneen bi ci des mooy jagle bi Serigne si amoon boo doon seetlu waxtaanam képp koo xam ne doomu daara nga ak kër goo mën a bokk doo am frustration ci ci ci ci ci xam ci waxtaanam c'est-à-dire doo dégg mukk Serigne Cheikh nga déglu waxtaanam naan moom daal man lii mu wax kër diw boobu nga xaw ko am mosu ci mosu ci am doo ko dégg ci ci waxtaanam chrétien bi dana ko déglu jëriñu ci euh, philosophe bi dana ko déglu jëriñu ci musulman bi dana ko déglu jëriñu ci c'est-à-dire xam-xam boobu mu doon kile nag te tamit moom macha allahu bind na fi wax na fi te daa nga gis ni bu problème amoon léegi boo xoolee ci internet bi bu problème amee rek boo demee ci internet nga gis ñuy commencé partager ay et yoo xam ne waxoon na ko xam nga waxoon na fi ni nañu sang réew mi nañu sang réew mi mu ne nuñ ko mu nañ ko sang ci jikko ndax buñ ko sangu ci jikko de dana ko sang loolu yëpp bu mu koy wax dem nañ ba ci loolu ma doon wax yëpp ñu commencé di ko dund beneen bi ci des mooy mosul nangu affaire ethnie wala affaire confrérie yi donte tariqa tijaani la bokk waaye looloo waraloon mu defoon benni benn sortie benn délégation boo xam ne dafa demoon seeti Serigne Serigne Abdoul Ahad Mbacké son yooyu ñu ngi fi ak ak ak ak ak film yi beneen bi des mooy daana dem ziyaare ji mbokkam ya nekk Kaolack mooy kër maam Abdou euh, Hamid Kane yi nga xam ne waajuram bu jigéen fa la bokk waaye kër maam Abdoulaye ñas nga xam ne mooy cosaanu euh, ñi sant ñas ñëpp cosaan bi mooy lew na ñaseen nga xam ne maam Baye fa la jógee dem samp eh, sanc Madina Baye daana ko daana fa dem di leen ziyaare ji ba am na sax benn xasida boo xam ne ba mu fa demee ci année cinquante yi la bu ma juumul eh, góor xalifa ba fa nekkoon maam xalifa nen seen seen naw nawle ngi fi ñëw bu ngeen bu ñëwee nag na ngeen ko tatagal na ngeen ko dalal te ñoom bu ñu dalalee mooy dañuy def benn poem dalal ko defe naa ne ca la waxoon ne farihal bilaadu bi max maqdami tijaani wal kullu fu wal kullu xilfu maharatin wa tahaani maanaam eh, maanaam réew mi ñëpp kontaan nañ ci ki nga xam ne moo ñëw gane si donc ak yam ca wax yëpp dem na booy wax ne ko eh, xool na ne moom Serigne Cheikh ne na xilaafa gi nga xam ne moom ne ci moom mu ne boo xoolee ci kanamam dafay feeñ te loolu ñi ko doon wax ay nit yàlla lañ kon moom foofu la jaar eh, amoon relation ak waa kër sëñ sëñ Fallou Mbacke xaritam la woon daana wax ni boo déglu ay waxtaanam da nga dégg mu di la si citeel maam xaaji euh, Ibrahima Niass da danga dégg mu naan la Baye Falilou Mbacké da nga dégg mu di la citeel ma maam maam maam Abdoul Ahad ñooñu ñëpp yooyu yëpp moo taxoon mu demoon ba nit ñi am ci moom cofeel fa tabarakallahu xale yi nag ci li ma waxoon ne ne mosul nangu toog rek di dundee barke moo tax mu waxoon ne xale yi mu defoon leen di jëleen benn poème mu ne yaa ayyuhal awlaadu inna sumuwakum yasdaadu bil ixlaasi wal insaafi usiikum bi thalaasati min sha'niha tashiilu sayrukum ila ahdaafi usiikum bi taaddubin wa tafakkurin wa taamuqin fi l baasi kal mu ne yéen ndaw ñi mu ne maanaam pour ngeen seen ak càng mu ne lii mën a tax mu yokk mu ne dafay jaar ci li ñu tuddee sellal waaye dafay jaar ci si lépp looy def nga set sellal ko mu ne nag maa ngi leen di dënk ñett nangeen fexe ñett yooyu mu ne mooy yombal ngeen dem ba atteindre seen objectif ñett yooyu mooy ban ak ban mu ne usikum bi ta addubin te lu mu jafe léegi maa ngi leen di dénk ngeen am yar ndax ku yar ku yaru li nga yor da koy yor waaye ku yor ku yaruwul loo yoroon danañ ko dana la rëcc mu ne maa ngi leen di dénk ngeen bi ta addubin ci yaru waaye wa tafakkurin maa ngi leen di dénk ngeen am di ndax dafa gëm xelaat beneen bi ci def wa taamuqin fil baasi kal aslaafi maa ngi leen di dénk ngeen am euh, maanaam ngeen di xootal seen recherche di ko defee comme ni ko aslaaf yi mag ñi doon defee ngeen defee ko noonu donc loolu yëpp wax na ko ndaw ñi dem na ba wax ne nag mën a nit li nga xam ne moom la war a def mu ne na ngeen fexe ba am métier na fexe ba am métier loolu yëpp li mu ko doon wax mooy nee na nit la muy dundee mu ñàkk moo ko gënal xam nga moo taxoon mu waxoon ni Seydi Hadji Malick dafa waxoon ne ci mujj ak dundam li mu rëccu mooy amul métier mu ne ko ah li ngay nee na Seydi Aliou génn ne ko ah yow li ngay def métier la mu ne déedéet diine du métier. te moo taxoon nag loolu moo waxoon ni ci foir ni nee na politique du métier nee ku ko def métier di ko dundee doo góor nee na diine du métier ku ko def métier di ko dundee doo góor mu ne ko ah ñu ne Serigne Aliou Gueye mu ne ko ah kon ban métier nga mu a mu ne loolu ñu maanaam métier faj neex na ma te jàngale ci jàngale benn nee na yonent yàlla Moussa moom seriñ Cheikh boo demee ci ci conférence danga ko gis dafa ni yonent yàlla Moussa dafa feebar. romb benn ñax ñax bi ne ko kaay dagg ma baxal ma naan ma wér nee na Moussa faalewul ñax gi dem ne na bi mu ñëwee mu dem fa mu doon toog di wax ak boromam nee na Moussa dem foofu wax ak boromam ne dama feebar damay ñaan pour ma wér mu ne yàlla yebal ko ca ñax ga ne ko demal ci ñax sàngam mu dem boo demee boo demee dagg ko baxal ko naan ko wér nee na musaa ñëw dagg ñax gi dem baxal ko naan ko feebar bi yokk mu ne ko ah, yàlla dama jaaxle mooy yaa ma wax ñax gi ma dem dagg ko mais dama ko dagg naan ko feebar bi dafa yokk mu laaj ko mu ne ndax am na docteur bu nekk ci dëkk bi mu ne ko waaw mu ne demal ci docteur bi nee na mu dem ci docteur bi docteur bi indi ko waat ñax mi nee na mu dem ci ñax ma dagg ko baaxal ko naan ko wér nee na mu di ko laaj nag lu waral euh, euh, affaire bi ni mel noonu mu ne ko yàlla ne Moussa nee na bi nga feebaragul mu ne dama la doon won ni ma mën a wuuf njaboot mu ne waaye bi nga feebaree dama la bëggoon a woon ni ma mën a teg njaboot natt waaye bi nga demee ci docteur bi mu bindal la ordonnance mu nga jël ñax ngi baxal ko naan ko wér dama doon jàngale nañ la ñuy sàmpe pénc mu ne ndax bu fekkoon ne ku feebar da ngay jël garab gi naan ko rek mu ne kon docteur dootu am am am utilité donc loolu Serigne Cheikh daana ko nettali ci ay kii am léegi nag ci li nga wax mooy euh, ni mu def daayira yi xam nga Serigne Cheikh Serigne Babacar moo fi sos daayira yi Serigne Babacar si mais Serigne Cheikh bi mu ñëwee moo fi indi li ñu tuddee fédération yi fédération de daayira kooku Serigne Cheikh moo ko fi indi ca la taxoon mu doon def ay conférence di dem partout kon bu ñu demee ba doomu soxna yépp di commencé def conférence c' est grâce à Serigne Cheikh si beneen bi ci des mooy même tissu yi nga xam ne dañ ko sol léegi ay vax yi Serigne Cheikh moo ko njëkk a sol ndax booba jamono kenn ñëwoon ko fi sol boo ko solee ñu wax loolu nag mais moom euh, dafa mës a gëm ne lépp loo xam ne daal mooy tënk nit te du te du diine moom dafa mës a bañ aada dafa mës a bañ aada te loolu nag li ko may loolu yëpp mooy xam nga li ñuy wax naan dëddu àddina ku dëddu àddina la ndax dëddu àddina mooy bu la yàlla mayoon ba nga dem këram bii dëkk réel bu ñu la waxee ne fii mooy këram ak euh, c'est-à-dire boo boo xamee Serigne Cheikh da ngay defe da nga fa fekk ligsi boo xam ni dina la yéem mais boo fa demee bu ñu la waxee ne fii mooy kër Serigne doo sax noonu lu tax mooy doo fa fekk ligsi bu extraordinaire waaw donc yooyu yëpp modestie boobu te mënoon na ko beneen bi ci des mooy bu ñu fàttee mooy ni mu tabe woon loolu moom defe naa ni e, nit dootul tabe bu mel ni Serigne Cheikh xam nga Mansour mbay daana wax ni moom bi ko Serigne Cheikh recevoir nee na lam ko may ca la xam ne moom Serigne moom Mansour Mbaye amul cardiaque mu ne ndax bi ko Serigne Cheikh jox xaalis bi nee na bi mu ko ubbee bu fekkoon ne mu am cardiaque dana daanu cardiaque dana daanu xam kon yooyu. Euh, Serigne Cheikh jaar na foofu ak ak ñoom képp ku Serigne Cheikh may rek boo génnee da nga yem te kat du du la may tax ndax daf na wax ne nit boo koy may danga koy may lu faj sa ajob donc foofu jaar na fii ak ñeneen ñoo xam ne ku ci nekk taximaan yi te Serigne Cheikh soo gis mu dund ci liggéey boobu donc mën nañ wax ne daal euh, li ko yàlla mayoon daal euh, benn nit la woon boo xam ne waaye nag damay jàpp ne dem na waaye demul moom lay tëjee. li tax ma ne dem na waaye demul mooy parce que mu ngi suñu buur xol yi ndax xal maata man sakanal xulub xalila mu ne ndax ki nga xam ne moom mu ngi ci biir xol yi bu ngeen demee demul te itamit bind na bàyyi fi wax na fi bàyyi fi kon ba léegi ñu ngi dund sëriñ Cheikh looloo tax ak orma bi mu joxoon booy juróom bu góor dama ne dafa ormaal sëñ Babacar si di ko wormaal ba génn àddina wormaal ko looloo tax nangul ñu suul ko fi ñu suul papam ndax boo demee fi ñu suul sëñ Babacar si moom dafa ne nañ ko yóbbu ca njàndaxun léegi boo demee foofa da gis ni foo xam ne àll la woon dañuy wax ne Serigne Cheikh moom te loolu euh, yombul ndax buggul ñëw ñu ñëw ci jàkkee sëñ Babacar ñu ne rang bii moo dem moo jëm ci sëñ Babacar rang bii mooy jëm ci Serigne Cheikh respect boobu moo tax moom mu yóbbu boppam pële nga xam ne ku koy ziar yi da ngay dem ziar ji ko foofu nag mu moom nag ni mu yore woon njabootam xool nga Serigne Cheikh xamul doom bi mu jur ak bu mu jurul xool nga dundam principe bi muy dundee du jabar du soxna du doom du kenn moom principe bu boppam la am ko xam ne kenn du ko ci génne ndax euh, raar na mook ci Sénégal nga am kilifa am sa papa boo ko bëggee gis moo lay demande ngay demande audience il est le seul malgré nga nekk xalif lu ma cinq ans xilaafa goo xam ne am na ñoo xam ne dañ ko jàpp ne pal la mais Serigne Cheikh gisoo ko mu génn yoon mu génn ci xilaafa gi te non seulement moom mooy doxal xilaafa gi te diiraa bi mu tëju ku xewle muy kër gi muy réew mi muy feneen nee na non seulement enveloppe am dana fa dem te doo gis ñu ñëw ne dañuy jox Serigne Cheikh addiya xam nga loolu dana lay xaw a jaaxal moo tax ñu ne am na loo xam ne Serigne bu ko ci jëm a toppandoo da nga am problème. mooy tëju ba pare te ferul yaa ngi faj ajo yi kon kon bu ko defee kooku daal moo doon Serigne Cheikh ci résumé xam ni dem na waaye mu ngi ci suñu biir xol yi ñu nag moom ku dul Serigne Cheikh moo tax ku ko sopp rek ñu sopp la nag ñun mën nañu wax ni dañu jeex ci moom ku ñu sopp rek Serigne Cheikh a tax ñu sopp la waaw koo gis moo tax boo mu soppee maam Baye parce que ni mu ko doon bëggee beneen bi ci def mooy Xaaji Ibrahima Niass dafa am benn complicité bu doxoon ak moom ba pare mu am relation ak fi nga xam ne mooy kër nijaayam kër sama turandoo Alaaji Usmaan dañu amoon Baay Ñas daana ñëw seet si Alaaji Usmaan kon relation boobu Serigne Cheikh loolu la doon dundal ci kër yi noo taxoon mu jàmmante ak ñëpp église bi tarixa yi amuloon ci benn différence kon nag ñu ñaanal ko yàlla ah yal nañu yàlla tax ci barkeem ko defee ñu gëneen gërëm nag yéen ñi nga xam ne yéen a sàkku jeetaay bi ndax itamit donte xamuñu ko ba mu jeex li ma la waxoon rek mooy géej la boo xam ne mënoo ko wax ba mu jeex dañu jël quelques et yoo xam ne peut-être mën nañ ko wax rek pour nit ñi xam ne Serigne Cheikh am na fu mu jaar waaye li ñu wax mën nañu wax ni da ngay jël sa puso dugal ko ci ndox bi génn rek loolu la kon nag yal na yàlla fay leen eh, seen seen groupe bi yal na yàlla def mu bokk ci groupe yi gën a mag dama dem ba ngeen am seen télévision yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ñu ngi gërëm Souleymane ak eh, ki nga xam ne mooy caméraman bi sama joolaa bi ndax sama sose bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatulah.